lâché bàyyi ko mu ñibbiwaat ca réewum France loolee sax moo tax naataangoom avocat ba ñu téye woon di Babacar Ndiaye moom moomee ñeneen ñi mu bokkal liggéey ci réewum Sénégal dañoo daal di bank seen yoxo ne faw daal li ñu defal Juan Branco ñu defal ko seen collègue bile Juan gënu ko te dañ leen war a jox seen gëdd seen àqax seen yelleef kenn waru leen di tuutil la ca jamono jooju nag Pape Alé nekkoon di def grève de la faim dañ koo yóbbu ca waral benn photo ñu daal di koy gis muy circuler ci réseaux sociaux yi comme quoi Ousmane Sonko moo nekk ci lalu hôpitalam di jël aw ndékkim fekk na yoo montage la borom photo ba nag nekkul kenn ku dul Malick Gakou waral nag Ousmane Sonko ñu yóbbu ko ca urgence wax nañ leen ko moo di grève de la faim moom doon def am nag aw communiqué boo xam ne ña nekk ca yeewi askan wi ak ay kuréel yu nekkee ci société civile bi ñoom ñëpp àndandoo di ñaan kii di bi lee ngeen mu bàyyi lépp loo xam ne lu ñeel wàllum soble si ndax daal cher ga nga xam ne ñu ngi koy gis ci marché bi ba noppi itam raar kenn mënu cee teg bët kenn mënu cee daal di jot sénégalais yu ci bëree bëri génn addu ci wax ci seen ab xalaat xam na ne ngi ci dund ay jafe-jafe neen ki nekkoon ci ay jafe-jafe moo di Pape Alé Niang mi nga xam ne dañu ko yóbbu woon ca urgence waaye nangutoon benn yoon koo xam ne da koy daal di fàcc naka noonu maître Ciré Clédor Ly génn di ci avertir mu ki nga xam ne moo di Pape Alé Niang buñ ko taxawul na cee daal di am waaye nag ga moom Pape Alé Niang bàyyi nañ ñibbiwaat ci njabootam jamono jooju nag ca mairie bu Dakar ma ngay jax lool ndax ki nga xam ni moo di Barthélémy Dias da doon appliqué wàllum parité bi nga xam ne yoon moo ko dal di imposé ba nga xam ne Abbas dañ koo remplacé kàddu yi Barthélémy Dias nag ñoom ñooñu dañoo gedd yeneen poste yi nga xam ne moom lañ leen a bëggoon daal di jox waral nag jaxasoo daal di am seen diggante loolu nag jur leneen loo xam ne moo gën a doy waar muy dàq bi nga xam ne coalition ci jom itam dàq na Ousmane ya Gouda Mboup xam-xamam jamono ji ñu toll nii naakay bëgg koo xañ tout simplement bokkam ci élection présidentielle yu atum 2024 buñ ci tegee arrestation Ousmane Sonko tax na ba yu ci bëri yoo xam ne ña ngi ca Paris ñoom ñu fas yéene woon daal di def aw manifestation ngir sàkk Ousmane Sonko ñu daal di koy libéré libéré itam képp koo xam ne da nga aw détenu politique ñu bëgg libéré nag jamono ji ji du kenn ku dul président bu Niger ndax waa CEDEAO taxaw nañ tem fas yéene daal di intervenir fële ca Niger ndax li ñu jàpp mooy militaires yi jël nguur gi dañoo war a bàyyi Bazoum mu daal di continuer aw liggéeyam ndax dañ ko élire démocratiquement waaye nag ci jamono jooju aw laaj bu rëy rëy mi ngi samp ci waa Yewwi Askan Wi dajaga ca TFM daal di poser le débat mu nekkul ne waa Yewwi Askan Wi ci boppam dañoo pousser Ousmane Sonko ba ca cëppaandaw ga ñu daal di ko fay bàyyi ngoon laaj la bu ñu samp ndax dëggalaam déet waaye yeewi askan L'actualité de la semaine a été marquée par l'arrestation de Juan Branco qui a été conduit à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss puis ensuite relâché pour être renvoyé chez lui en France. Pendant ce temps, Babacar Ndiaye était toujours maintenu en détention raison pour laquelle ses collègues avocats avaient décidé de tout suspendre jusqu'à la libération de ce dernier. Pendant ce temps, Pape Alé était admis aux urgences séance de même que Ousmane Sonko pour cause la grève de la faim qu'ils avaient entamée. Pendant ce temps, une photo de Ousmane Sonko circulait sur les réseaux sociaux et il s'agissait d'un montage photo. La tête de Malick Gakou remplacée par celle du leader de PASTEF qui a fait polémique partout au Sénégal. Pour apporter son soutien, Yewwi Askan Wi a fait un communiqué à l'endroit d'Ousmane Sonko, une lettre qui lui a été adressée pour l'inciter à arrêter la grève de la dans les marchés à cause du prix insupportable de l'oignon, raison pour laquelle elle a exprimé son mécontentement à travers les micros d'AGT News. Au même moment, Pape Alé Niang bénéficiait d'une liberté pour pouvoir retourner chez lui, mais celui qui est rentré bredouille, c'est Abbas Fall a été remplacé à la mairie de Dakar pour respecter la parité. Barthélémy Diaz a expliqué qu'il leur avait donné d'autres postes que ces derniers ont refusés et l'histoire chassé Taxawu Sénégal de la dite coalition l'autre qui a été chassé mais cette fois-ci des listes électorales c'est bel et bien le leader de Pastef Ousmane Sonko qui selon l'Observateur a été rayé de ces listes pour Ngouda il s'agit d'une grosse farce l'État du Sénégal ne veut rien d'autre que voir Ousmane Sonko ne pas participer à l'élection présidentielle de 2024 mais il garde toujours ses droits car la contumace depuis qu'il a été arrêté est anéantie l'arrestation d'Ousmane Sonko et les détenus politiques au Sénégal a poussé les Sénégalais de la diaspora à faire des manifestations, notamment à Paris. Pendant ce temps, la CEDEAO s'apprête à intervenir au Niger car, selon cette institution, c'est le président Bazoum qui doit continuer à être le président de la République du Niger car étant élu démocratiquement. Nous terminerons round par une question, à savoir si Yewwi Askan n'a pas elle-même trahi et lâché Ousmane Sonko pendant ces moments où il est en détention car si on se fie jàkkaarloo ces derniers ne font rien d'autre que publier des communiqués lieu de trouver des stratégies pouvant aider Ousmane Sonko à sortir de prison de la manière la plus pacifique possible raison pour laquelle on a posé cette question à savoir si Yewwi a trahi Ousmane Sonko ou pas dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires AGT